الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu sant suñu boroom subhanahu wa taala di dajewaat ci suñu téere bi di risaala boo ibn abi zayd al qayrawani ñu yegsi woon ci fanweereelu bunt bi ak ñaar muy baabu nikaax baabun fi nikaax ak la ca topp jëluñ ci ay bind ba yegsi woon tey fi nga xam ne moom la ñu tuddee wa man laana zawjatahu lam taxilla lahu abada wa man laana zawjatahu lam taxillu lam taxillu lahu abada bu dee mool bi ma yor ñu ngi ci page soixante-dix ci bu dee bu xonq bi samaru daani bi bu dee mbokk yi gis nañ page bi am na it traduction bu am 180 mooy wa man laana zawjatahu ci Samardaani waaw nga xool 460 yow mi yor Samardaani bi wa man laana zawjatahu lam taxilla lahu abada ala kulli xaal bu dee gis nañ ko ñu ngi fàttali tey mooy le treize ci li nga xam ne mooy weeru rajab di tombeek le huit ci weeru mars ci deux mille vingt kon ñu jël suñu bind bu njëkk day wax ni wa man laana zawjatahu koo xam ne daa rëbbante ak soxnaam lam taxilla lahu abada kooku dootul dagan ñeel ko ba mukk wa kadalika alladi yatazawaju almara naka noonu koo xam ne day sëyëg jigéen fi iddatiha ca la nga xam ne mooy iddaam wa yata'uha fi iddatiha gannaaw ba mu sëyëg moom ca la nga xam ni mooy idda boobu waaw jàpp naa bokk lu jëkk loolu day wax ki rëbbante ak soxnaam mbokk xam nañ ci lislaam bala nga am droit di jiiñ nit ki njaaloo fokk da ngay am ñeenti seede su doonte ne ñetti jullit yu maandu dañoo demoon ubbi ab néeg ñoom ñépp ñu jàkkaarloo ñaar ñoo xam ne ña ngay njaaloo ca njaaloo bala koo lislaama saxal la nga xam ne ku góor ko da koo yor dañ koy gis mu dugg ca la nga xam ne ku jigéen ko da koo yor gis nañ leen ñu sumee ko tëdd ca lal ba rek saxalul njaaloo waaye même bu doon ñoom ñetti ñoo ko seede ñu ñëw wax loolu ci attikatu lislaam daf leen di wax uti leen ku leen ñeenteel ba loolu amul suñu borom ne ne fa ulaika inda allahi humul kaasibuun ñooñu dee ca yàlla ay fenkat lañu doonte ne ci nit ñi wax nañu dëgg waaye ci yàlla comme matuñu ñeent ay fenkat lañu léegi nag mu des benn kaa benn ku ñu wax Hilaal ibnu Umayya ñëw na ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah yow mi yàlla yónni man day maa fekk kenn ci saxaaba yi mu ànd ak sama soxna maa ci teg sama bët yonent bi na ko hilaal wax nga lu rëy da nga indi ñeenti seede sinon yow dañ la duma mu ne ah yow mi yàlla yoon maa ngi lay seedeel ci yàlla ne li ma wax dëgg la discussion boobu fa muy am ca la yàlla yàlla yónni jibril alayhi salaam ma wàcce aaya yi ñuy jàng ci suuratu nuur walladina yarmuuna azwaajahum ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين suñu borom nag ni su boobaa ku góor ki na taxaw seede ci kanamu àttekat bi ñeenti seede yoo xam ni day seede billahi ne man maa ko gis muy njaaloo juróomeel ba mu ne su dee damay fen yàlla na rëbb yàlla wàcc sama kaw loolu mooy la nga xam ni mooy war ko góor ka su ko defee premier cas bi ci jëkk am ci lislaam yonent bi woolu na ka nga xamee ne mooy soxna hilaal ñu ñëw toog bi nga xamee ni nii hilaal waat na ñeenti waat juróomeel ba yonent bi tëj gémmiñam na ko hilaal toroxtaange ak àdduna day moo gën goog àllaaxira su dee ni liggéey wax wóoru la bul yeggale mu ne ko billahi lazi la ilaha illa huwa yow yàlla yónni li may wax dëgg la su dee damay fen yàlla na rëbb yàlla wàcc ci man yonent bi alayhi salaam daa ji ne soxna si loo ci xam yow it waatal soxna si waat ñeenti waat ne day fen billahi day fen billahi day fen juróomeel ba ni ko yàlla waxe mooy an tashhada muy an mu wax an ghadab allahi alayha in kaana min al saadiqin merum yàlla yàlla na wàcc ci man su dee sama jëkkër li mu wax dëgg la ba mu waatee ñeenti waat juróomeel ba yonent bi tëj gémmiñam da ko soxna si toroxtaange ak àdduna day moo gën goog àllaaxira soxna si hésité hésité ba mujj mu ni su dee li mu wax dëgg la yàlla na meru yàlla wàcc ci man yonent bi alei salaam ne kon jóg leen dem yàlla araamal ne seen diggante ba faw loolee kon moom la ñuy tuddee ak rëbbante doonte ne yàlla wone ne ne hilaal mooy wax dëgg ndax kaka hilaal doon tuumaal muy sharik ibn samaan yàlla miy dogal ànd boobi ëmb da caa am soxna sa ba mu wasinee doom ja kenn xàmmewu ko ak kaka jëkkëram doon tuumaal waaye loolu du tax ñuy atte ci sharia atte bu jëkk ba mooy valable mooy ay seede ca soxna si nangu naa seede kon dañ koy bàyyeeg boroomam doonte ne def na lu rëy amma rëbbante boobu bu amee dañuy araamal seen diggante ba faw mu lay wax benn ngoo ci li tax ñuy jigéen ñu araamal ko soxnaam ba faw ñaareel bi bu dee ni ci mazhab Malik bokk mooy kii dafa takk soxna ca iddaam jeexagul jëkkër ji dafa dee mu war a iddawu quatre mois dix jours jëkkëram da koo fase mu war a iddawu trois mois wala trois règles mu yàkkamti takk ko avant idda bi di jeex bu doon te ni tasoon nañu sëy bi bu idda bi matee da koy takkaat waaye bu dee ànd naag moom ci biir idda bi bu dee mazhab Maalik dañu naan ñoom dañ koy araamal ci moom ba faw mi ngi noonu dañ koy araamal ci moom ba faw loolu kon mooy la nga xame ne nii mooy bind biñ jëkk a jël insha allah ñu jël beneen bind mu ne wala nikaaha li abdin wala ama sëy day du ñeel jaam bu góor wala bu jigéen illa an yazana sayid lu dul mu joxe ndigal sang baleen moom wala taqidu lmaratu lii di fas sëy jigéen du ko def wala abd jaam du ko def wala man ala ghayri diinil islam ak koo xam ne nekkul ci diinil islam kon la taaxidu ni mi ngi noonu diinil islam nikaahal mar'a lii di sëyu jigéen ñett ñi duñ ko def wala yajuusu do dagan mukk an yatazawwaj rajulu ci góor di takk imra'atan benn jigéen li yuxillaha liman tallaqaha salaasa ngiree mu koy daganalal kaka fase woon ñetti fase wala yuxilluha zalik ca loolit du tax mu dagan ca moom mi ngi noonu mbokk kon day wax li nga xam ne mooy jaamu sharia amul droit di dem takk soxna lu dul boroomam moo ko jox ndigal lu dul boroomam moo ko jox ndigal ndax rawatina alalam boroomam moo ko moom lam cay jël di joxe loolee daf ci war a am ndigal jaam bu jigéen bi nga xam ni daa am boroom nga xam ne boroomam su ko neexoon def ko di ànd ak moom ca sax du ko takk kon moom it amul droit sëy ci amul ndigalu sangam mu wax ñi nga xam ne duñu maye soxna muy jigéen mbokk jigéen du maye moroomu jigéenam jigéen fokk góor moo koy maye góor googee doom la bàyyi la frère la wala jaambur boo xam ne bu am responsabilité naka noonu nit mu ne jaam du maye soxna naka noonu it ki nga xam ne nekkul jullit du maye jigéeni jullit tey benn jigéen ngi nii tuub dugg ci lislaam papaam moom nekk chrétien mu am ku koy bëgg si ndax papay chrétien moo koy maye déedéet nga noonu wala yajal allahu lil kafirina ala muminina sabila jullit yéeféer du nekk kilifaam looloo tax su boobaa dañuy xool ci famille ay jullit na moom ñu maye ko su amul jaambur bu am responsabilité kilifteef bu soxna nangu maye ko wala la fay représenté kaddu islam maye ko waaye bàyyi bi yéeféer du may doomi jullit am ma nag bu dee ne moom ci boppam ab chrétien la kam yi maye it di chrétien na moom su boobaa moom ca baayu chrétien ba ngay dem mu may la ko ñu ne noonu ñu dem di takk ay tubaab ak ay kenn xamul su dee ne soxna si tuubal papam chrétien la moom chrétien la baayu chrétien mën na ko maye amma bu tuubii dugg ci lislaam baayu chrétien amatul droit di ko maye mu indi it beneen kaa mbokk ci lislaam ki fase soxnaam ñetti fase ñetti fase imma fase na ko jëlaat ko fase ko jëlaat ko fase ko jëlaat ko lii moom boo li bi borom xam-xamu umma bi dëppoo nañ ñu aram na ca moom ba faw mu des nag beneen masala bu ñuy nar a jàng ca kanam mooy def na ko may naa la sabat ba faw wala fase naa la ñetti fase loolu moom ixtilaaf la ca am waaye ala kulli xaal bu ñu dëppoo ci ne moom kii kat day araam ci moom lu dul mu sëy ak beneen góor du dagan mukk beneen góor ñëw ni kii kat sama xarit la sama wëllëre la xaaral ma takk soxna si gal naa ba fase ko ngir moom mu mën koo takk waa ji takk soxna si sëy boobu muy sëy sëy bu xaraam la ca loolu it même bu ko fase du tax mu dagan te ka nga xamee ni nii moom mooy jëkkëram ju jëkk ja su dee ne yii lay waaj moo doon daganalal ko loolu ca moom mu xam amaa nag ma bu dee xamu ci dara fase woon na ko ñetti fase sëy na ak keneen ba tas yoonum néew ci mais bu dee yit ne ni kii da koo nar a takk ngir moom mu mën cee jotaat kookee la muy def xaram na moom bu ko jëlaatee xaram na loolu mooy aju ci ñaari atte yooyee kon loolu it su dee nii bala ñuy jàll bu dee ko am question ci rëbbante gi wala ci ñetti fase yi bu dee am na comme question bu jëm ci boobu incha allah su amul ñu jàll jàll ci li ci des waaw bismillah waaw salaam ka nga xam ne mooy ko jigéen ki dem di dugg ci sëy boo xam ne nii pour takk benn góor góor gi takk ko mu tappaas ko mu dellu ci ko jëkkër ja loolu dañuy gis ne du daggan ci lislaam yonent bi alei salaam dane lahana allahu almuhallil walmuhallala la yàlla rëbb na kiy daganal ak ka ñuy daganal loolu da ngay gis na soxna si su deenee moom ci boppam la nga xam ne moom mooy yéeneem mooy dem proposer boppam góor ba kookee takk ko loolee da ngay gis ne du dagan ci moom amma bu doon góor a ñëw nag takk ko takk goo xam ne moom du lu mu proposer am na nag ci xelam xolam ne kii day ah mébét naa bi su ma teqali ko moom mën a dellu ci ko góor ko ca gannaaw ba it deful lenn lu tax waa ji fase ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam day wax ne bépp jigéen boo xam ne yaa ngi laaj sa borom kër mu fase la ca du am benn lor ku mel noonu day araam ci moom xetub aljanna amma fas gam fas ci ngir xolam loolu rek loole moom ca amul benn sabab bu mu ca def islam du ko ko toppee mais bu dee da ko sabab loolee day mel de moo góor ga ñooy bokk yem te mooy daal sabab ngir daganal loo xam ne nii islam nangu wut ñooy daganal lu mel noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ban cadre ala kulli xaal loolu passé nañ ko mooy passé nañ góor nit jigéen kan moo ko war a may loolu passé nañ ko jigéen ñu koy maye mooy imma baayam wala doomam wala ay frère am ñu ñëpp ay waliyum lañu ka nga xam ne moo ci priorité mooy baay gannaaw ba doomam gannaaw ba frère am gannaaw ba noonu la tegaloo ala kulli xaal ñun ñooy la nga xam ne mooy asaba lu ci bëri ci borom xam-xam yi fa la ñu féetale ak may wallahu subhanahu wa taala alam naam kon ñu jël beneen bind mu ne wala yajuuzu nikaahu lmuhrim li nafsihi du dagan ki armal jëm ca makka na doon umra la wala acc muy takk ñeel boppam wala yaqidu nikaaxan li gayrihi doonte ne du takkal soxna ñeel keneen wala yajuusu nikaaxul marid du dagan sëyub aji feebar wa yufsax wa yufsaxu des na ko teqale wa in bana biha su dee ànd nag moom ci lal falaha sadaqu fi sulusil mubaddaa mubaddaa su boobee dana ko ñeel canam ca ceer ba waa ji bàyyi doonte ne dañ koy jëkke wala miraasa laha ca du ko ñeel ba boobaa miraas walaw tallaqa almarid imraatahu heure bu aji feebar fasee soxnaam lazimahu loolu dana lënkoog moom lazimahu zalik loolu dana lënkoog moom doonte ni wa kaana laha almiraasu minhu lu tey dana donn ci moom in maata fi maradihi zalik bu dee ci feebaram boobee wa man tallaqa imraatahu salaasan koo xam ne fase na soxnaam ñetti yoon lam taxilla lahu bi milkin dootul dagan ci moom ci moom gun ko moom muy jaamam wala nikaaxin wala ci ab sëy xatta tankixa zawjan gayra xanaa lu dul ne dafa sëyeeg góor beneen mbokk kii day indi masala benn jigéen a ngi nii armal na jëm makka diir bi mu nekk ci armal kenn amul droit di ko maye ci sëy ca loolu firiwul na bu nekkee makka rek waaye bu dee Sénégal yi nga xam ne dañuy aji Madina la ñuy jóge fam départ Madina lay armale ba ba bisu fukkeel ba ca tabaski ga su dee ne dafay def qiroon wala muy def ifraat amma bu dee umra umra moom benn bis lay doon benn bis lay doon mais ki nga xam ne daa armal ci umra wala ci aj moom du mën a takk soxna pour boppam kenn du ko mën a maye soxna moom it du mën a may kenn soxna maadaama mi ngi ci armal bi gannaaw loolu mu indi benn masala masala boobu mooy lan mooy ki nga xam ne dafa feebar feebar boo xam ni ñu bari jàpp nañ ne ci lay dee kooku dem takk soxna pour dugal kooku ci miraasam loolu la ci tuuma boobu la ci sharia ay bañ ñu ne su boobaa sëy boobu mu takk islam du ko nangu même buñ ko takkee dañ koy fecc maadaama tëdd na feebar boo xam ne jàpp nañu lii moom feebaru dee la mooy dañuy tudde tey condamné mu ne bu dee ni dafa doon koo xame ni nii jot na ànd ak moom ci lal loolee far yàlla dogal mu daal di faatu su boobaa da ngay gis ne du tey can ba nga xam ne moom lañ ko waroon a jox dañ ko koy dañ koy génne ci alalu waa ji la nga xam ne mooy ceeru alal ja la ñuy jël can ga nga xamee ni nii moom la yeyoo woon ñu jox ko ka nga xamee ni nii mooy soxna su loolu la ñuy wax ci loolu donte ne nee na du miiras kenn du ko jox ci ndonali ndax sëy bi islam reconnaître ko daañ ko jox canam ngir ànd gi mu ànd ak moom ci lal bu jotul woon na ànd ak moom ci lal dañuy teqale diggante bi jeex bi waaye maadaama ci feebaru dee la islam reconnaître sëy bi ku mel noonu du doon mu des cas contraire ba te mbokk dañu xam ni l'islam lu mu jàngal rek luy am la wallahi benn mbokk buy ñëw ci jàkk ji fii nettali na ma benn waay boo xam ne am na lu ko yàlla dénkoon ci alal mu ñëw di bëgg benn doomam doom bi wëlbatiku bañ loolu coow lu bari amoon na ca ba mbir bi yegsi ci man ala kulli xaal waa ji lu mujj wax sama waa jooje na ko diw mu ne mu ne ko man dama dama condamné dañ ma condamné li ma des ci dund bëriwul yow nag sama xarit nga su ma sañoon bu ma faatoo sama alal dugg sa kër looloo taxal ma bëggoon a takk sa doom loolu mbokk da ngay gis ne benn waay buy ñëw fii nettali na ma ko su ko déggee it na xam damay jàngale moo tax ma joxe ci misaal loolu mbokk bu dee fuqaha yi rawatina mazhab Malik ñoom dañuy bañ loolu une fois que nga xam ne da nga condamné ci feebar amatoo droit di takkaat soxna jëree loolu di am jeexital ci sa miraas amma bu dee contraire kii moom daa dem ba yëg ne il est condamné mu xool soxnaam kenn ñàkk ca neexul mu fase leen jëree bañ bu bu dee duñu doon su dee feebar boobu ko dal ca la dee ñooñu dañuy doon ñooñu dañuy doon ñooñu dañuy doon am na sax fuqaha aw yi wax ni bu idda ba jeexoon ba mu sëy keneen sax feebar ba rey ko dañ koy indi mu doon am na sax fuqaha aw yi wax loolu ala kulli xaal dañ koy considérer moom day doon loolu kon mooy contraire la nga xam ne dañ koo jàngoon bu njëkk gannaaw ba nag la indi masala yi nga xam ne dafa fase soxna ñetti yoon mu ne kooku même bu soxna sa wëlbatikoo nekkat jaamam amul droit di ànd ak moom gannaaw ba it soxna soosu dara ci àdduna du tax seen diggante daganaat lu dul dafa sëy sëy boo xam ni sëy bu ñu saxal la ci lislaam te sëy mooy mooy lan mooy sëy bu ñu consommé sëy bu ñu consommé mooy sëy boo xam ni waa ji ànd na ak moom bu doon bu mu ko fase ñetti yoon may nañ ko ma demba ma dem ba àndul ak moom may ko ma sàmb ma sàmb àndul ak moom lu tax mu dagan ci moom fokk rek ñu may ko góor boo xam ne góor gi daa ànd ak moom mu doog a dagan ci moom loolu mooy attef sharia boo xam ne nii loolu la sharia dogal incha allah kon ñu jël beneen bind mu ne wa talaaqu salaas fasa ñett day fi kalimatin wahida nga def ko ci benn kaddu bid'a lool day bid'a la wa yalzamuhu in waqa'a waaye nag dana lënkoog moom daan ko wéyal su dee ne loolu tabbe na wa talaaqu sunna fase ci sunna daal mubaaxun lool lu ñu daganal la wa huwa an yutalliqaha fi tuhru mooy mu fase soxna si ci ak laab lam yaqrabuha fiihi laab goo xam ne jegewu ko ay àndul ak moom ci lan mu fase ko ca talqatan lii di benn fase summa la yutbi'aha talaaqan gannaaw bu du ca teg beneen fase xatta tanqadiya al idda ba baa idda ba di mat wa lahu raja'atu fi llati taxiidu dana ko ñeel mu jëlaat soxnaam delloo ko ca soxna sa nga xam ne day gis réegal maa lam tadxulu fi lxaydati thalitha fi ak duggul ca ñetteelu réegal ba fi lxurra bu dee kooku gor la aw aw saaniya wala boog réegulu ñaareel ba fi l ama bu dee ne kookee ab jaam la mi ngi noonu kon mbokku day wax fii ci ni ki jàkkaarloog soxnaam da ko fase naa la ñetti yoon fase naa la ñetti yoon ñu ne su boobaa fase ne fase bidaa fase bu sunna nanguwul waaye teewul loolu dañ koy wéyal ci moom fase la boo xam ne ñetti fase lañ koy considéré ca loolu bokk na li mazhab Malik saxal ci loo xam ni borom xam-xam yi am nañ ci xilaaf ndax ci jamono Omar ibn Khattab wala boog lu jiitu loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay ñëw na wax soxnaam fase naa la ñetti yoon am ku dem nettali ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaam ne ayulabu bi kitaabillah wa ana bayna azharikum a léegi dañuy faye ci rëb yàlla bi ca maa ngi dund ak yéen faye ci rëb yàlla bi weesuul yàlla nee na fasel jëlaat fasil jëlaat fasil trois mu doog a araam yow nga jël trois yëpp def ko benn yoon ndax dañuy fay ci rëbb yàlla bi ci maa ngi seen biir ba benn waay jóg na ko yow mu yàlla yoon te maa dem rey ko mu ne ko déet bàyyi ko mbir ma ñu dem kon jamono yu leen ci bàyyi salaam lool fase mooy ñett yoo xam ni fase gannaaw fase la ba jamono Omar Aboubacar ba jamono Omar gaa yi nag gën a rakkaaj kere ji safal laalu rek nga gis ko ni fase naa la ñetti yoon Omar ne waaw nit ñi day yàlla dafa amoon benn mbir boo xam ne kaanat lahum fihi ana ñoom day yàlla da leen ci mayoon ak dal ñoom ñi yàkkamti ko waaw te ñu koo far wéyelu ci ñoom benn yoon rek mi ngi noonu gannaaw bu mu wéyelu ko ñoo ko fi waxati sa soxna fase naa la ñetti yoon dootul la dagan lu dul ba'da zawj loolu doonu sax ci loolu nag fuqaha yi am ñoo xam ne dañ koo jël comme sunna xalifa ci xulafa u rachidun saxal loolu ci mazhab Malik am na nag ñoo xam ne dañ ni loolu Omar moo ko doon yare mbooloo ma mu jiite waaye téeréb yàlla bi li mu wax at-talaaqu marratan fase ñaari fase la ñetteel ba mooy fa mu wax fa in tallaqaha fala taxillu lahu xataa tankixa zawjan xayra mooy gannaaw ñetti fase loolu la yonent bi dundoon loolu la Aboubacar dundoon kon Omar li mu jël da koo jël ngir yare ko société waaye ala kulli xaal na doon loolu am na amul képp koo xam ne dégg na wax ji sa soxna lu mu la mën a def ci adduna nga la way fase fase ko rek yow koy fase ko rek waaye bul yëgg mukk ci ne fase naa la ñetti yoon am na ci loolu loo xam ne lii kon loolu lay wax bi daal léegi nag mu ne kon lan mooy fase sunna bokk lan mooy fase sunna gis nga bu doon nit ñi xam nañ fase sunna di ko dund maa ngi lay garantir ni quatre-vingts pour cent sëy yi du tas quatre-vingts pour cent sëy yi du tas ndax fase sunna mooy lan islaam danaan soxna bi nekk ci règle mënoo koo fase bu dee bi mu gisee règle ànd nga ak moom ci lal ci beneen règle ñëwagul mënoo koo fase kan nga koy mën a fase mooy bi nga amee problème muñ nga ba mu gis règle ba règle am set nga koy doog a fase fekk ma boobu yàlla def mënoo koo fase ci règle bi mënoo koo fase ci règle boo ànd ak moom li ëpp ci nit ñi lay tax ñu fase du lu ñu étudier mer moo leen tax a fase ca loolu mbokk réalité la boo xam ni ku yàlla nattoo nga nekk imam xamu ci dara li ëpp ci nit ñi du ne dañoo étudier seen soxna A ba Z ba xam ni kii daal mënutumaa def ak moom kon naa teqali ko ak moom waaye benn mbiree ñëw rek nga ne ko nangam dem na ci xew ba guddee ci réeral na dépasse na nga dem sama loo xam ne nii lu ñàkk kenn xamul mi ngi noonu loolu mbokk ñu bàyyi ci xel moo tax islam ne non non non loo mer mer mer muñal ba mu gis régal ba régal bi jeex loolu muy benn ñaareel bi mooy kon bu dee ne ci lislaam fokkit kon mu nekk régal boo xam ne jotoo ko bi nga ko fase nga yem ci ne fase naa la benn yoon amma boo ko nee fase naa la ñetti yoon wala nga ne ko may naa la sa baat ci déggin bu dee ne lenn ci déggini fuqaha yi may naa la sa baat égal fase naa la ñetti yoon ndax jigéen boo ko fasee benn yoon tant que idde bi jeexul heure bu la neexee jël ko boo ko nee may naa la sa baat nag mooy kon dagg naa sama digganteeg yow loolee ñu bàyyi ci xel bu baax kon loolu lépp du fase sunna mi ngi noonu su dee xam nga kay lan mooy may naa la sabaat gannaaw ba nga bañ caa dolli beneen fase loolu mooy fase sunna allahuma am na it beneen charte bu mu ci waxul te mooy nga wut ñaari jullit ñu maandu seede loo leen ko mi ngi noonu wa shahhidu shahidayni min rijalikum mi ngi noonu wala noonu la suñu borom wax mi ngi noonu suñu borom subhanahu wa taala kon bi mu tëralee règle yooyu moom mu leerale ko ni borom téere bi mu ne képp koo xam ne nii man waaw mu ne nag léegi ki nga xam ne daa fase soxnaam fase bi mooy première fois mu koy fase wala c'est la deuxième fois mu koy fase ku mel noonu am na droit jëlaat ko muy soxnaam na doon neex na soxna sem neexu ko am na droit jëlaat ko muy soxnaam can du fa am maye du fa am da koy delloo rek muy soxnaam maadaama idde bi jeexagul kañ la idde bi jeex mooy su gisee troisième règle am soxna si dañoo bëggoon nga fase ko fekk règle am passé na jotoo ànd ak moom ci lal soo ko fasee mu gis beneen règle muy première règle la nga doon muy un mois à peu près deuxième règle muy deux mois troisième règle muy trois mois su duggee ca premier jour règle am rek seen diggante moom teqalikool léegi dootu sa soxna yaag góor ñépp ci bokk yam léegi loolu mooy ñi firee xoroo la nga xam ne mooy ak laab sa borom xam-xam ne ñoom ixtilaaf yi suñu borom ne ah wal mutallaqaat yatarabbasna bi anfusihinna salaasata quru quru boobu ndax laab gi la wala règle bi la su dee la mazhab Malik ak la ëpp ci borom xam-xam yi liñ jàpp quru laab gi la kon fase na ko ci ak laab ba mu gis règle kon ñu ne benn laaba ngoog deuxième règle ñaaru laaba ngoog troisième léegi ñett laa ba ngoog kon sëy bi jeex na amma boo demoon ci lu mel ne mazhab ahmad ak mazahib yi mel noonu ñoom dañ naan xóoroo moom mooy règle bi ci boppam su ko defee kon soxna si ñoom boo kii fase soxnaam mu gis premier règle deuxième règle troisième règle tant que règle ba jeexagul soxnaam la tant que règle ba jeexagul même bu duree woon une semaine soxnaam la bis bu régal ba jeexee nag muy doog a dagg ci ci boppam muy doog a dagg complètement donc kenn wax naa leen bu dee mazhab Malik ak la ëpp ci borom xam-xam yi ñoom premier jour troisième régal ba seen diggante jeex na bu dee amee dootu ko donn seen diggante jeex na te xam le ne ki ñuy fase fasek delloo muy raj iya rajo loolu bu kenn ci ñoom dee keneen ki da koy doon soxna siñ fase bu dee jëkkër ji day dem doon jëkkër ji bu dee soxna si day doon ndax ba tey dañuy considérer soxnaam la ci yu bare bare bare bari allahuma lu dul nag balaa mën a nekk soxna cent pour cent mooy day yéene delloo si ko mu nekkaat soxnaam kon ñu jël beneen bind mu ne fa in kaanat mimman lam taxid su dee ne naam mu ne su dee ne bokkul ci ñi nga xam ne duñu gis règle aw mimman qad yaisat min al mahid wala mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo ñàkk yaakaarati ci ni daan gis règle tallaqaha mata sha su boobaa dana ko fase heure bu ko neexee wa kazalika alxaamil naka noonu soxna si ëmb wa turtaja'u alxaamil des na delloo soxna sa ëmb mu nekkaat soxna maalam tadan fi yëggu sinul wal mu'tadda bi shuhur ka nga xam ne moom iddaam ci ay weer lañ koy xool dees na ko mën a delloo mu nekk soxna maa lam tanqadil idda feeg idda ba jeexul wal aqra'u la nga xam ne mooy la suñu borom di wax al aqra muy quru hiya al athar mooy laab gay nekk ci diggante ñaari régal ya mi ngi noonu kon mbokk day wax ne ki nga xam ne dafa yor soxna bu commencé gul gis régal ci loolu lu dagan la ci lislaam jigéen ñu maye ko douze ans treize ans fekk commencé gis gis règle ku mel noonu heure bu la neex nga fase ndax amul règle bu ñuy xaar gannaaw ba jigéen bi nekk ci ménopause dem na ba gisatul règle ku mel noonu it heure bu la neex nga fase ko jigéen bi ëmb heure bu la neex nga fase ko ndax wóor na ne ëmb na mi ngi noonu su ko defee loolu moom mooy lam wax ci loolee ñu mel noonu bu dee ki ñuy fase ci gisagul règle wala faase na règle kooku ay weer la ñuy xool mi ngi noonu wala yasna min la yasna min almahid in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur ki gisagul règle wala ki gis ba faase règle suñu borom nee na ñetti weer lay toog kon waa ji fase woon na ko tey le treize ci weeru rajab dañ naan soxna si ba tey soxnaam lañ koy considéré ba baa ñuy dugg la nga xam ne moom mooy lii di lii weeru chaban gannaaw ba ramadan gannaaw ba shawwal demee le treize ci korité su boobaa nag seen diggante jeex na su dee ni mu ngi noonu amma bu dee ni bi mu koy fase daa ëmb bu dee bi mu koy fase daa ëmb moom su boobaa dañ naan fu ëmb di deñi su boobaa seen diggante jeex na amma bu dee ëmb ba dafa teel a deñ borom xam-xam yi am nañ foofu tuuti ixtilaaf yu ñu junjoon ci dars yi passé am na ñoo xam ne dañ li ñuy considéré ëmb mooy luy commencé nekk bindu doomu aadama ay yegg na ci mudduxa lu bari ci borom xam-xam yi di ko tënk ci lu jege quatre-vingt-dix jours nga xam ni passé na ñaari phase yi suñu borom wax entre alaqa ak la nga xam ne mooy nutfa amma boo demoon tey ci lu mel na mazhab Malik ñoom dañ naan nañ xool li mu génne li mu génne bu dee lumbu yàpp la su boobaa dañ naan kon kii wusin na wusin na mu jeex wusin na amma bu dee li mu génnee dereti kese la ba buñ ci tuuroon tey ndox mu tàng mu tasaaroo kooku dañ naan kon loolu deret bu yàqu rek la kenn du ko considéré ëmb bu yàqu loolee kon am na ci attee loolu nga xam ne xëy na lu xóot la ne ko gën a mën a xam mooy sage femme ya wala gynécologue ya almuhim daal bu dee ëmb ba moom feeñ na ba nit ñi yëg ne daa ëmb te loolu en général balay am fokk moo am ay quelques mois heure boo xamee ni ni avorté na la mu ëmboon fekk jëkkëram fase woon na ko seen diggante moom mi ngi noonu jeex na xam naa kon dañuy jël suñu bind bu mujj rek mu ne kon wa yunha an yutallaqa fi lxayd daañ teere waaw bokk na liñ mujj a jàng bala ñuy passé lim ne wal aqra'u hiya al athar mooy wax nañ ko ci bind bi ji suñu borom bu ne wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru borom xam-xam yi dañu am ixtilaaf ñii ne salasata quru mooy ñetti règle yu mat sëkk ñii ne salasatu quru mooy ñetti laab yu mat sëkk ñetti laab yu mat sëkk mooy mazhab maani mooy kon premier jour règle am rek idda ba jeex na ca troisième règle ba bu doon te nag yeneen mazahib yi dañ ne il faut règle ba jeex ngir idda bi doo ko jeex suñu jël bind bu bees mu ne fa in kaanat mimman naam mimman lam tahit am loolu jàng nañ ko mu ne waaye kon wa yunha des na tere an yutallaqa fi lxayd ci ñuy fase ci biir règle fa in tallaqa lazimahu bu fasee ci biir règle loolu day day wéy ci moom day lënkoog moom wa yujbaru ala rajaa doonte ne dañ ko forcé mu jëlaat soxna si ñu ngi noonu maa lam tanqadil idda fii ak idda ba jeexul walati lam yadxul biha ka nga xam ni waaje àndulugu àndulul ak moom ci lal mooy dugagul ci moom yu talliquha matasha soxna suñ la may jotoo ànd ak moom ci lal kooku heure bu la neex nan nga ko fase wal wahidatu tubiinuha ku mel noonu nag denn fase ga nga fase rek teqalee na ko ak sa yow ak sa sa diggante ak moom wa thalathu tuharrimuha illa ba'da zawj amma nag boo ko fase ñetti fase dana araamal seen diggante ludul mu dem séyeg beneen góor wa man qaala li zawjatihi anti taaliq koo xam ne jàkkaarloon nag soxnaam ne ko fase nañ la fase naa la fa hiya waaxida loolu benn fase la xatta yanwiya aksara min dalik ba baa mu yéene lu ëpp benn boobee wal xulu la nga xam ne muy summiiku ca mooy soxna si delloo waaja cangam ko joxoon talqatun fase lañ koy considéré la rajaata fiha boo xam ni waaja dootu ko mën a def rajaa ca mooy delloo si ko muy soxnaam lu dul ñu ñu mayaat ko ko wa in lam yusammi talaaqan doonte ni tuddul woon ak fase ca ba soxna si di summeekoog moom ida atathu shay'an su dee soxna sa jox na ko dara fa xallaaha bihi mu summikoonte ak moom ci loole min nafsihi te bakkanam mi ngi noonu kon mbokk day wax ne des na tere ñu fase jigéen ci biir règle comme niñ ko waxe sànq bu dee ni nit ki daa fase soxnaam ci règle dañuy considérer benn fase ngo waaye dañ koy forcer mu jëlaat ko dañ koy forcé mu jëlaat ko boo delloo ci lenn ulama mazhab malik ñoom nee nañ attekat bi am na droit sax tëj ko ci loolu bu dee nangoo koo jëlaat ndax abdullah ibnu omar daa fase soxnaam omar ibnu alxataab dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko abdullah day daa fase soxnaam te soxna si nee na mi ngi ànd ak règle yonent bi alayhi sallam ne ko demal nga ne ko na ko jëlaat fal yuraaji aha na ko jëlaat hadis la boo xam ni ñiy jàpp ne fase biddaa du tabbi foofu la ñuy sukkandiku ñu ne fase biddaa la kon du tabbi ñi jàpp ne fase biddaa day tabbi foofu la ñuy sukkandiku ndax dañ ne yonent ne ni ko na ko jëlaat daa fekk mu ne da ko jëlaat mooy kon fase woon na ko yaa ngi dégg te it Omar dana ko fase na ko mi ngi noonu kon ñu ne su boobaa dañ koy forcé na ko jëlaat su ko jëlaatee téye ko amul droit fase ko ba baa soxna si di gisaat règle boo xam ne règle bu normal la cee jotu cee ànd ak moom ci lal moo koy doog a mën a fasewaat loolu moo tax mu ne dañ koy forcer ci mu jëlaat ko amma loolu nag mooy fii ak idda ba jeexul amma bu idda ba jeexee moom jeex mu ne ki nga xam ne dañ koo may soxna jotul ànd ak soxna si ci lal ci lu bari suñu moodu moodu yi ñu koy def te it loolu ëpp naa def de sëñ bi ëpp naa def ki nga xam ne daa nekk bitim réew amul ay këyit ëpp naa may soxna loolu bu leen koy def darul yàkkam ci nañ ko muñal ba bis bu ñëwee ñu may ko soxna si mu jeex am déet waaye yi ñu bari ci yéen xam ngeen ñoo xam ni bañ leen mayee soxnaak léegi ay at ngi nii mënuñoo ñëw loolu mbokk ëpp naa def baaxul ci ko góor ki baaxul ci ko jigéen ki amma bu doon te ne waa ji dañ ko may soxna jotul ànd ak moom ci laal mu ne soxna si fase naa la fi mu ko waxee fase naa la jeex na seen diggante jeex na place boobu bala ñu fa jógee mën nañ ko may beneen caamin bala ñu faa jóge fi ñu koy waxee léegi fase nañ ko mën nañ ko mayee léegi amma nag bu nekkoon fase naa la kese buñ ko seen diggante jeex na waaye bu ko neexee takkaat ko bu ko neexee takkaat ko ndax moo góor ñëpp ci bokk yem léegi amma bu nekkoon nag fase naa la ñetti yoon su boobaa moom araam na ci moom lu dul mu séyeeg beneen góor même bu dee ñoom ñaar musuñu bokk laal mu wax ko ñetti yoon kooku su boobaa araam na ci moom ba mu séyeeg beneen góor mu ni ki jàkkaarloog soxnaam na ko fase naa la kese loolu moom fase naa la kese lu dul mu yéene ci ñetti fase mooy li ma doon wax sax lu bari ci sénégalais yi may naa la sabaat liñ ci jublu rek mooy fase naa la benn fase donte ni nii lu garaaw la ndax mën ni firi ñetti fase amma waa ji bu dee xamul loolu moom la mu ci jublu rek mooy benn fase la ci jublu loolu it du tee ñu jàpp ne benn fase lañ koy considéré mi ngi noonu su ko defee mu ni képp koo xam ne ni dafa summeeku ci lislaam mi ngi noonu dafa summeeku ci lislaam lan mooy summeeku summeeku mooy soxna si dafa ñëw daa di ñaan borom këram baat borom këram bañ ne du ko may baat ca du daggan ci benn soxna muy ñaan borom këram baat lu dul lor goo xam ne du ko yëg ci boppam doonte ne lor ga mën na caa bokk mooy bëgguloo ko mi ngi noonu mooy bëgguloo ko comme la nga xamee ne nii noonu la benn soxna ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama jëkkër day diineem gërëm naa ko jukkam gërëm naa ko waaye yu mu yàlla yu ni bëgguma ko bañ ma koy may xawma ko ba ma ko gisee bu dul woon ak bañ lislaam du ma sunu ñaari bopp yi du daje mukk ci blal léegi nag muñ naa muñ mënutuma muñ da daf may may suma baat yeneen ci bàyyi sam na ko waaw moom jardin bi mu la mayoon nag mu ne ko dama koy delloo jardin dollil ko ci sax yaa ngi dégg yeneen bi ne ko déet dolli gi moom jëru ko boo fit borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf ndax jëkkër am na droit laaj soxnaam lu ëpp la mu ko joxoon wala amul droit lu dul ca la mu ko joxoon da ngay gis ne la gën a dégg doomu muy sukkandikoo te xadis bi amul droit jël ci moom lu dul la mu ko joxoon kon loolu mooy delloo na ko canam daa di moom boppam gis nga islam di ko tuddi summeeku xala a mooy lu ñu summi ndax soxna suñu borom dane hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna soxna yi seeni yére lañu ñu leen di suturaal yéen it yére ngeen ñuy suturaal soxna yi kon yére ba nga xam ne moom nga suturaale la soxna si le fekk mu delloo la canam moom boppam daa mel ni daa summeeku moo tax ñu tudda ko xolu mu ne su boobaa nag da ngay gis ne amatoo droit di ko jëlaat wax nañu sànq ne boo fasee sa soxna tant que idde bi jeexul am nga droit jëlaat tant que trois mois yi jeexul wala trois règles yi jeexul am nga droit jëlaat amma bu dee da ngeen summeekonte yàgg góor ñépp ci yem mu des nag ixtilaaf bu nekk ci borom xam-xam yi ndax summi konte fase la am sëy bu ñu yàq la ñi nga xam ne dañoo jàpp ne fase la te mooy li gën a siiw ci mazhab Malik gën a siiw ci ëpp ci borom xam-xam yi su doon da nga koo fase ñaari yoon gannaaw bu mu summi konte ak yow seen diggante araam na lu dul mu séeg beneen góor amaa ña ko jàpp fas ku rek ne sëy bu ñu yàq la ñoom dañ ne summee konte bi nga summi konte ak moom kenn du ko konte ci fase yi ba ñoom ñu wax loolu it dañ naan ndaw sa si iddaam boobu benn règle lay doon ndax du idda bu muy jàppal waa ji jox na ko alalam moo moom boppam benn règle bu ko amee am na droit sëy doonte ne nag wax naa la waxu la ëpp ci borom xam-xam yi ak jumhur ñoom dañ koy considéré fase kon su boobaa ñett règle lay toog doog a mën a sëy ak beneen góor loolu kon mooy mbir bi kon mi ngi noonu mbokk julit li la yàlla yombaloon tey yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq sàmmal ñu suñuy sëy suñu sëy njaboot ak sëy bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal sans lor la ñuy wax sans lor moom li mu wax fii ci téere bi daf ne wa talaaqu mubaax mooy sëy mooy fase lu ñu daganal la waaye bu ñu delloo ci waxi borom xam-xam yi sëy dañ koy delloo ci juróomi atte sharia yi juróomi atte sharia yi benn bi mooy dañ naan am na maa ngi wax boog fase fase dañ koy delloo ci juróomi àttee sharia yi am na fase boo xam ne dañ ne dafa xaraam mooy waa ji amul benn lor bu ko soxna si def ca wóor na ko ne su fasee soxna si soxna si loru loolee dañ naan fase la goo xam ne fase gu ñuy araamal la comme ne yonente bi alayhi salaam ba abu ayub al ansari ñëwee ci moom na ko damay fase ummu ayub mu ne inna talaaqu ummu ayub la xuub parce que ummu ayub day loolu bakkaar la bu mag la kon bu dee ne yow soxna si amul benn problème bu mu la def man nga ko yor sans problème te wóor na boo ko fase mu tumuranke ak njabootam tumuranke loolu dañ naan islam du nangu loolu moo am loo xam ne nii dañ naan mbir la boo xam ne bu ñuy sip la moo di ne ne soxna si defu la dara boo ko fase it amul problème bu koy dal teewu loolu da nga xam ne dañ koo sip moo am yoo xam ni dañ naan mu baax la moom amu ci lenn loo xam ne ni lu ñuy yàqal kenn ca moroomam moom fase gi ak ñàkk fase amul lu muy def ci moom dara yéen ñëpp d'accord ngeen ci loolu lañ naan lu mu baax la moo am ci loo xam ni dañ naan moom lii de lu ñu war a def la masalan waa ji dem na ba gis na kat moom ci boppam par exemple mënul soxna si dara te soxna si mënul muñ loolu ak ngant boo xamee ne nii waa ji gis na ko ci soxna si moom kat mënul doon koo xam ne ku ko mën a aar tere ko lu bon li muy def jéem ne jéem jéem mënu ci dara masalan ku yàlla nattoo soxna bu bu dul julli masalan soxna bu dul xam ne du julli ci nga jéem jéem mënoo ci dara kooku dañ naan la wareef la nga dem nga fase ko looloo tax atte sharia yooyu nga xam ne mooy wareef ak xaraam ak lu ñu daganal ak lu ñu sopp ak lu ñu sib yii yépp dañ ne sëy bu nekk am nga benn ci boo xam ne méngoo nga ak moom ci boobu ala kulli xaal daal liñ ciy wax sëy mooy chirurgie la soo demee hôpital médecin yi bala ñoo dogg ci ne nañ dagg tànk bi daa fekk ne solution yépp xool nañ ko amatuñu solution am déet su sëyit noonu la mën a doon tant que ñi ngi koy war a mën a sauver dañ ko war a sauvegarder suñ demee nag ba gis ne lorom gii dafay sax dafay gën a yokk ca mu ni su ko delloo gannaaw lu dul fasi su boobaa nga doog a fasi wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam wayaakum naam damay laajte par exemple léegi ku jàpp idda ñetti ñetti weer la jàpp idda léegi soxna si waru waru gën a kër kër jëkkër wala léegi dëgg na nga wax ne par exemple su dee gis na ko ñetti ñetti laab léegi sëy bi jeex foofu laa bëgg a leer ba wax ñaari
waaw ala kulli xaal la loolu ñaari atte la yu bokkul suñu borom dane ki fase soxna soxna bi na toog ci kër gi ba baa iddaam di jeex bis bu gisee nag ñetti règle bu dee kuy gis règle la wala ñetti weer bu dee ku gisul règle jour ba mu gisee ñetteelu réglam su boobaa bu ko neexee takk ay bagage am dem yow jëkkër ji bu la neexee ne ko takkal say bagage dem mais lu jiitu loolu suñu borom da koo considéré lii di lënk ko sëy gi mi ngi ci ba tey wax naa la sànq ne bu soxna si deeyee waa ji day doon bu waa ji dee soxna si day doon kon suñu borom ne idda bi na ko def fi mu doon sëyee am maa nag bu jeexee moom jeex na wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli haal ah ki nga xam ne dafa summikoonte ak jigéen soxna si d'accord ak moom kooku amul idda bu muy xaar maadaama moom ci moom la jóge beneen góor koy lañ naan bala mu ko mën a takk fokk soxna si gisu benn règle ba ñu xam ne léegi moom ëmb topp ko ci waaju jëkk ji mais waa ji nga xam ne moo dul séeg moom kooku moom du même bu summikoonteeg moom tey bu suba mën na ko takkaat ndax loolu moom amul bu ci doom soso it doomam la mi ngi noonu wallahu aalam loolu koo xamul lu muy wax ki naan mënu koo takkaat lu dul ba'da zawji loolu day fekk ne waa ji da koo fase ñetti fase amma bu dee ne dañoo yem rek ci delloo naa la sa can muy benn teqalikoo moo tax borom xam sa dañu wuute ndax fase lam du fase mais même ñi jàpp ne fase la dañ ne benn fase la amma lu dul waa ji nag na ko fase naa la ñetti fase mais bu ñu yennee rek ci da koo delloo canam dañ naan waa ji amul droit di ko jëlaat comme jabaru normal bi mu fase jabaru normal bi mu fase tant que idda bi jeexul mën nga koo jëlaat mu neex ko mu neexul amma soxna si nga summi konteel su boobaa dañ naan moo moom boppam su ko neexee nangul la su ko neexee nangul keneen bu dee ne nag yow da nga koo fase ñetti fase su boobaa moo ko nga fase ñetti fase yem waaye summi konte kese du araamal góor ci borom këram jëlaat déedéet déedéet du ko jàppal jëkkëram naam waaw naam naam ki nga xam ne dafa fase soxnaam ci deru ci nifaas fase na fase bida jigéen tànk mi ngi nekk ci idda kenn du ko fase ca maadaama moom fas nekk na koo xame ne nii dafa wasin ba nekk ci deru ci nifaas kooku laabu jigéen ci laab lañ koy fase moo tax li sunu borom naan fa talliquhunna li iddatihinna mooy fam mën a commencé compter ak laab te boo ko fasee ci deretu nifaas loolee da ngay gis ne moom loolu du ak laab goo xam ne mën na ko considérer fokk bala nga ko fase da ngay bàyyi ba deretu nifaas bi jeex su boobaa nga doog ko mën a fase boo ko fasee nag bu see fase gi moom dañ koy wéyal ci yow waaye nag def nga fase bi daa wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam waaw waaw bisimilah bu ñu paree ñu mujjee ci mbokk bi rek ngeen baal ma dafa ñu liggéey fu sori waaw bisimilah waaw. dañoo am ay doom. ah kay maadaama suñu konte moom mi ngi nekk diggante yi jëkkër ak jabar am nañu doom ak amuñu doom. loolee moom amu ci benn jeexital am nañu doom ak amuñu doom amul benn jeexital ci jigéen ñaan na jëkkëram baat jëkkër ji bañ na koo may baat mu delloo ko alal jam ko joxoon loolee moom am njaboot ak ñàkk njaboot ci yem mi ngi noonu kon ñu mujj ci mbokk bi rek waaw. est-ce que dafa. waaw loolu moom suñu aada la au Sénégal aada la boo xam ne xëy na dañ ciy yaraat njaboot ji waaye ñun suñu aada Sénégal mooy fase nañ ko bàjjan baag santa jaag ñëppay jël seeni ñëw buub bagage yi yóbbu loolu moom suñu aada la Sénégal waaw ñu bëri ci nit ñi bu ñu yégee ne fase nañ ko mu toog fa sax dañ lay xoole bëtu ak a ñàkk jom ak a ñàkk fulla ak nangam nangam waaye bu dee li suñu diine jàngale moom suñu borom daf ca joxe ñaari ndigal dane fala tuxrijuhunna wala yaxruj yéen jëkkër ñi bu leen leen génne yéen soxna yi bu leen génn ñaari ndigal la yàlla jox ñaari park yëpp loolu yi yaakaar naa ndigal gënu koo dëgër doonte ne ne nit ñi il faut ñu jàngalaat leen diine mi ngi noonu yal na yàlla ah yàlla delloo ñu ci njàngalem lislaam te nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain